salaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax bu ngeen gisee jataay bi xam ne ci xew-xew bu am solo ci leen jóge tey tombeek uh, ñaari fan ci weeru mai bi nga xam ne mooy bésub tey wi njabootug borom daaru muxti yi nekk fii ci Touba Argentine taxawaloon fii cant gu am solo muy cantu borom daaru muxti ci ndi ci njiital ki nga xamante ni mooy maam Thierno Amar kon du ñu def lu dul yëkkati suñuy kàddu jox ko ki nga xam ne mooy sëñ Pape Niang bu ñu fa noppee jox ki nga xam ne mooy Serigne Khadim kaddu yi kon nag mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ñu bàyyi mbokki taalibe yi ak kaddu yi ak tey lan la ñu yëg ci cantuk borom daaru muxti gi. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, yéen jullit yi mbokki yi euh, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan ci Touba TV Argentine. Euh, kàddu yi nag moom kàddu yi santal rek comme ni ko sëñ Assane waxee kàddu yi sant ak kàddu yi ngërëm ndax tey wax dëgg yàlla yenn nañ ci bis boo xam ne si euh, bisu mbégte la wax dëgg yàlla maanaam bég nañ ci mbég moo xam ne si làmmiñ tuuti na ci tudd maanaam mbégte mi nga xam ne bég nañ ko ci bis bi xanaa dañuy ñaan yàlla suñu borom rek lépp loo xam ne si rek euh, maanaam ab taalibe jëf na ko ci bis bi bu tollee ni tarfatal ay ni sax ñuy ñaan yàlla suñu boroom mu nangu ko ful ko defal ko ay xéewal e, jotale ci taalibe yépp ñu ngi koy ñaan ci barke bis bi di ko ñaan ci barke borom bis bi waaw e, li ci topp nag mooy wax dëgg yàlla e, dañuy sant rek waaw di sant rek waa daayira bi ak ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi yépp waaw ndax comme ni ma ko wax rek bis bi xaj na ba ñu koy commencé amoon nañ ci njàqare ak tiitaange waaw waaye nag ni ma xam ne ni nga xam ne si noonu la noonu la mujjee daal euh, fa tabaarakallaahu euh, sant rek lañ ciy def waaw gi nag kon ñu ngi ciy jiital euh, waa Touba TV Argentine nga xam ne ñoom bis bu ñu mas am ci dëkk bi rek ñëw nañu ànd ak ñun bis bi taxawu ko ci anam yi nga xam ne si noonu lañ ko war a taxawoo Euh, ba mën koo wasaaree ba fu waay nekk ci àdduna bi rek mën cee jot kon ñoom ñu ngi leen di sant cant goo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem euh, comme sëñ Assane mii itam nga xam ne si moo nekk ci suñu wet euh, ñoom ñoo jiite daayira Baay moom moo jiite daayira Baay Fall yi ñoom itam ñoo ñoom ñoo àndoon liggéey bi wax dëgg yàlla fa tabaarakallaahu ñoom liggéey bi saa bu commencé kenn du leen fi njëkk te ñoo ciy mujj kon nag ñoom itam euh, amee nañ leen cant ak ngërëm goo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem euh, léegi nag damay jox euh, ku mel ni sëñ xaarim micro bi balaa loolu maanaam cant bii mooy ñaateel ñaata at ngeen taxawal ko fii ci réew mi waaw bii yaakaar naa suma juumut mooy ñeenteel bi yoon ñuy def màggal ak borom daaru musti fii ci Touba Argentine waaye dama lay xamal ne rek bis bu ñëw bu ne rek day fawxa ba nga xam ne si moo weesu waaw loolu moom fa tabaarakallaahu waaw jox sëñ xaadim kon moom itam mu sànni ci ay kàddu euh, bu ko defee rek kàddu cant la ngërëm rek waaw kon mbokk yi ñuy seetaan ba tey ñu ngi ànd ak yéen rek ci jataayu njabootuk borom daaru muxti mi nga xam ne kenn koo xam képp ku tudd yoonu muri rek tudd ki nga xam ne mooy borom daarul muxti ndax it ñëpp ko safoo borom daaru muxti ñëpp ko bëgg ngir li mu def ci yoonu murit ndax bi Cheikh Ahmadou Bamba yaakaari jaam ñi di yónnee ndar borom daaru muxti la yebaloon moo njëkk a dem ndar moom la sëñ Moussa Ka naan jëmmi nit ji koy malaaka Cerno Ibra Faati wute ak Moussa Ka kon ba tey ñi ngi fii ak njabootuk borom daaru muxti fii ci Touba Argentine ñu taxawaloon fi màggal gu am solo ki ngeen gis mu nekk ci sama wet mooy Serigne Khadim Serigne Khadim nag bu ñu koy tudd ci réew mi daanaka ñëpp xam nañ ko ci kuréelu xaside gi muy jàng kuréelu xaside xasida di jiite kuréelu xasida yi ah jàmbaare ci lool kon du ma def lu dul tàllal ko sama micro sëriñ Xaadim ñoo ngi lay ziar bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ Assane Baye Fall ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziare waa Argentine TV di am mbégte bu baax a baax ci reportage bi comme ni nga ko waxee rek sëriñ Assane bis bi tey maanaam wallaay sama dund man sama dund barki borom daaru moxti bis ci man bis bu kawee ni ci man musul am te it man sax du ma wax kàddu yi cant kàddu yi soññee laa wax soññee gi mooy ñun nañ xam ne waruñoo nekk ay ragal mukk ñun nañ war nañ xam ne waruñoo nekk ay ragal ndax ki ñu àndal du ragal ki ñu àndal ba muy jëfal sëriñ bi boobu jëf dafa jafe ñu àndal bi muy jëfal sëriñ bi jëf dafa jafe kon mbiri kenn ku ci nekk rek na ko rangoo na ko rangoo te yan ko bu ko defee lépp loo xamante ne nii song nañ ko rek ay barke borom daaru dinañ ci am mbégte tey li may wax saa su nekk rek kaddu yi may wax ci kanam sëñ Abbas laa ko waxoon laa ko waxee woon ñun yowmal xiyaamatul akbar borom daaru lu mu fa séddalewul bëgguñu ko kaddu yooyu tey laa koy waxaat kon nañ leen gën a góorgóorlu di am mbégte barki Cheikhul Khadim dama mbég dama am mbégte mu kawee kon it maanaam euh, baneen message biñ ciy jàll rek ay kenn ku ci nekk rek bis bi bu jubsee na nga jàpp ne yow yow yaa ko war a jagal buñ ko defee rek am na ñoo xamante ne nii nelawuñ ay fan a ngi nii nelawun di xalaat bis bi nan la ñuy def ba mu jag kon yaakaar naa ne benn membre bu nekk bu defee noonu rek li ñu bëgg barki borom daaru danañ ko am tey it maanaam nañ nañ jàpp ne maanaam nañ fexee doon ak ak ay mat yu yuñ takk nañ nañ nañ buñ ko defee rek dara dara du mën ci ñun dara ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax bu ñii di jëf fii nag ñii di xaw a ci yooyu lu ñu gàllankoor day yomb mais li ñuy def nañ koy def ngir jëmmi borom daaru muxti képp nag moom la ñu yaakaar tey ñu ngi ah, ñu ngi santaat nag bu baax a baax a baax di sant suñu baay bii nekk suñu wet suñu baay damaaw wax dëgg fa yàlla nekk na suñu baay ñun ñi ñëpp waaye daf noo jiital ci liggéey bi ba pare nekk ci am yor yat di ñu sàmm kon nag ñu ngi koy sant bu baax a baax di ñaanal e, lépp loo xamante ne nii tey bis bi jàng nañ ko ci alxuraan ak xasida ak bépp jaamu yàlla bu ñu fi def rek yàlla na ko suñu borom ful e, defal ñu ko ay xéewal barke borom Tuubaa Eh, tey maanaam bépp kaam duñ fi jàng rek yiw yaa ngi suñu borom sotti ci eh, eh, suñu yaakaar tey ëllëg muy borom daaru moxti ñu ngi wàccee foofu suñu kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Assane Baye jërëjëf Serigne Karim kàddu yi am na solo kon mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ba léegi ñi ngi ak jëwrin jibi ah moom it ñu tàllal ko suñu micro rek mu wax tey lan la yëg tey ci bës bi ak it tey maanaam bés bi ñoom nan lañ ko dunde njabootu borom daaru muxti gi ci réew mi suñu bisimilah salaamaaleykum yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen gërëm di leen jégul di leen jéggal vraiment seen taxawaay rafet na yéen ñëpp baat bi daa xaw a dee bu mënuñoo wax waaye dinañ soññewaat rek maanaam mbokki taalibe yi ñu gën a jàpp ci daayira bi gën di teew di ko teewal tey soññee beeg nuyoo beeg yëpp ñu koy teg ci loxol maam Thierno ñi Amar comme moom mi ngi senegal féegu teewu ko waaye wax dëgg yàlla ñu des ci ginnaaw yi nga xam ñoom la fi bàyyi woon la nañ taxawaayam li fa waroon a taxaw yëpp gaa yi taxawee na ko ñoom xaadim ñoom am sa ñoom paap ñoom am ñaan gaa yëpp daal wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm di soñee rek daayira bi yéen ñi bokk ci borom daaru yaakaar borom daaru di leen ci ñëw di teew daayira teew tey teg mooy doxal daayira ni ko jëwriñ doon waxee nan di teew tey teg xam nga bu kenn ku nekk ne am na gaa yu fa nekk ba tax demoo day tardeel daayira na ñëpp di teew tey teg ndax fii lu fi waay def war ngaa xam ni am na fu mu jóge nan ci gën a jàpp bu nu yaafus mbir nag yëkkati ko mu taxaw yomb na waaye mu continuer ci taxawaay ba moo jafe yëkkati na ba ñëpp ni borom daaroo ngi nii nañ ci gën a jàpp ba ñëpp di ko seen ci kaw bi gën a góorgóorlu xam nga mun ñu yàlla lépp dina baax incha allahu rabbi wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm daa dee ba sëñ Assane mënu ñoo wax waaye ñuy siyaar ñëpp te jégalu ñëpp jàllañ jëf ah, kon mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon seetaan seen télévision Touba Argentine adduna wël ngër këpp du ñu def lu dul di gërëm suñu cameraman ñi di ko wax mbokk Gambien ak Gora Seck kon nag mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon.